turam ak santam di leen jaajëfalaat bu baax su ma sañoon ku nekk dama lay fekk fa nga nekk ah mbay waaw nga ne la jàmb sama loxo bi mm-hmm. waaye li ñu mën fii ku ci nekk ni lay jox sa wàccuwaay di leen bëggee bu baax a baax contentement ak mbégte lay am saa ma toogee fii pour indi leen li gën a fas ci xibaaru làmb waaye nag dama jël nuyoo bi di dal ci ki waral mbaboor bi di Pape Thialis Faye di borom kër gi di ko nuyu te di ko ñaanal jàmm ju bare bari mm-hmm. Mbaye Babacar sama fay naa di ñëw jukkil leen di gën a fës maa ngi leen nuyu ki nga xamante ne bii lu jën njaak mooy njaak mooy njaak kooku mooy Pape Thialis fay ñu ngi koy bëggee di ko giar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax Sëriñ Amina Mané ab Ablaye ak Yande ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax di la ñaanal jàmm yow tamit di kontaan ci ah, xarit suñu xarit yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina mbokk yi nga xamante ne bii heure bu ñu xëyee revue de l'arène la ñuy seetaan ngir mën a am information làmb bi génn leen bu baax a baax. na leen bu baax a baax waaye damay bëgg ki nga xam te ne nii moo ci jàpp li wolof Njaay daan bu fekk bu leen neexee mbay baabu ga yaay jaar téye ca mbagg ya ko suñu mbagg na ba tax daaloon ñu benn yoon mooy huile j'adore moom ñu indil diwlin bu sell boobu noonu sans cholestérol baax ci xale mm. baax ci mag dara ñu indi vermicelle j'adore macaroni j'adore spaghetti j'adore ñu ne déet ñu ne déet <laughs> ñu ne déet moom ni nga ko mëne déet waañ bu mu dugg macha allah jàmm laa pee am waaye bu ñu comme yi kii dafa toggal de kon daal j'adore a ko yor j'adore mooy waaj ak ku ci Eau Kayar moo ci topp Ndeye Mbacke di ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar Eau Kayar neex na set na sel na oyof na ba pare baax ci xale baax ci mag senegale yépp bëggal ko seen bopp taamul ko seen bopp kon Ndeye Mbacke comme ni ñu koy waxee saasu ne Eau Kayar. mooy ndox bi ñuy aar. jeex na tàkk foofu laa jóge kayaar rek daal di dugg Dakar Ndiaye jël jóg ne saraax ci xew-xewu làmb. Mm-hmm. ak journal suñu làmb comme xëyee ci xëdamu njëkk. guerre des mots ba nag commencé na démb diggante Papa Sow ak Siteu bu lamsaar ginnaaw ba Papa Sow waatee ne ko dama lay daan. kii di Siteu nag nee na ko mu ngi koy menacé. Euh, Siteu mu ngi koy menacé nee na ko dama lay agressé xanaa ci biir combat bi la koy agressé nee na ko incha allah dama lay dama lay dama lay duma dama lay daan Papa Sow ni nga ko waxee euh, waat na moom tamit ne ko incha allah dinaa la daan Papa Sow nag teg ci ne ko. man ni ma jàppoon ne noonu nga toll sax toll woon noonu ndax bi nga ñëwee bàkku sama kanam bi ma la xoolee euh, jàpp naa ne ëpp nga nii mais xam naa ne yow amoo doole fi mu toll nii loolu nag mën nañ jàpp ne bataille psychologique la wala day dox ci maayanu booy bi mi ngi noonu Pape Abdou Fall mi taxawal boobu le combat nee mi ngi sant mi ngi gërëm mbokk promoteur am yi nga xamante ne bii 9h euh, ci suba ba wi ci guddi ñu ngi ko gungee ci li nga xamante ne bii mooy face to bi ku ci mel ni Assane Ndiaye Fallou Ndiaye Mor Mbaye mbokki promoteur am yépp yi nga xamante ne bii taxawu nañ ko ci bisam boobu ba mu jàll ci jàmm ak salaam. macha allah jour mu nekk journée bu neex a neex a neex ah. ah. Pape Abdou Fall moom jiite kuréelu bi ëmb promoteur yi promoteur yi. borom Paf production daal taxawal combat bu mag le premier août diggante Papa Sow ak Siteu. nañ xaar l'avenir lu diira. waaye nag damay daal dem combat bi nga xam ne muy catu làmmiñu xale yi catu làmmiñu mag yi le 4 juillet diggante ki nga xam ne mooy ak Mbaye Guy gi ka ci àdduna ak mooy Mbaye Babacar. mooy Sowru. soru nag la muy xam journal bi ne kii di Mame Balla par légèrement favori. Mhm. maanaam dafa jàpp ne expérience bi mënoon a dominer jeunesse bi. Mm, Sorou Fall yooyu la kàddu ci biir journal moom daal li mu jàpp nee na Mame su doon joxee eh, li nga xam ne moom mooy favori ci làmb ji moom la koy jox ndax nee na Mame Balla eh, am na expérience ci wàllu làmb maanaam xam-xamam ci wàllu làmb ñu bëri nangul nañ ko ko te dafa mën a bëre man bis nee na mbay guy gi xele la. Euh, am na sañ-sañ ci làmb moom tamit wane boppam boo yegsi fii mu yegsi loolu moom moo tax muy bëreeg Mame la nee na combat boobu amateur yi ku ci demul stade mën nga koo rëccu. mu ngi noonu nag Pape Alioune Mbaye mu ngay dem ci beneen soog bay am le 4 it le 4 moom journée bu fees bu riche. ka na mooy Gris 2 ak ki nga xam mooy Abdou Diouf waaye ki nga xam ne mooy Pape Alioune Mbaye dafa tranché bu dee lutte pure la nañ ko jox Gris 2 waaye bu dee bagarre nañ ko jox Abdou Diouf. nee na Gris 2 dafa war a ñëw jël ay responsabilités am teel a jeexal komba bi ndax moo gën a nekk xale te it moo war a gën a bëgg combat bi te bu ñëwee dafa war a privilégier lii nga xam ne moom mooy bëri bañ topp xeex bi ndax bu ñuy xool ci taxawaay Abdou juuf moom moo ko sut nee na Abdou Diouf nag ndaanaan la ci làmb am na taxawaayu mbër. tollu nañu mbër toll nañu mbër yi te bëre na ak sampion yu bëree bëree bëri ci làmb ji te it bul fàtte ne Abdou Diouf moo daanoon Gris Bordeaux numéro un kon Gris de bu ñëwee dafa war a taxaw dëggal boppam jël ay responsabilité ba daan ki nga xamante ne bii moom mooy Abdou Diouf Pape Aline bay bu Walf Fadjri TV moo yëkkati yooyu la kàddu ci biir journal bi mooy loolu nag ginnaaw ba mu lancé ci kanam ki nga mooy doomu doublesse ba taxu Balla dañu naa ko Sa Thiès mhm. Moussa Ndoye nag ba mu génnee sorteem la ngay xaar di àddu nag mooy kiri franc ak jén kayne di kaatinan xalaatu leen sax ci wàllum làmb instant bi nee na bëre ak Sa Thiès mu daan ma rek du tax euh, mbër mu jóg rek layam-layam ne day bëre ak man du ma jël n'importe quel adversaire mhm. nee na le don de l'arène Gaston Mbengue depuis lors mu ngi teg Jos di ko wutal adversaire nee na sama combat ak Jos combat bu war a neex la. mën nañoo bëre te bu ñëwee mën nañoo jàmmaarloo wante te euh, yemul foofu nee na kàddu yi ma yëkkate woon jëmale ko ci CNG wax naa ci la ma cay wax ba pare dootuma ci yëy yàppi nee na daal du dellu si waat ci yooyu la kaddu ca noonu nag Fils de Balla nañ jëm ginnaaw ba mu amee ay blessure ba tax nañu annulé combat am ba doon dox ci diggante euh, ki nga xam te ne mooy général Malick. général Malick ah. léegi wér la këg macha allah. mu ngay uh-huh. addu ba nee na ko combat dina am mu lay neex mu lay naqari maanaam qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige may baax mooy na ko muy taw muy sawet muy naaj muy ker muy guddi muy bëccëg amul foo mën di jaar ba ñu bëri ndax yaa jël li nga xam ne moom mooy sama avance ki nga xam ne moo taxawal boobu la combat di Assane Ndiaye euh, fils de Balla nee na maa ngi koy déglu. heure bu jàppee date man pare na pour bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy général Malika gannaaw ba ñu ko fekkee arène national waxtaan ak moom fa la yëkkatee yooyu la kàddu nee na gannaaw ba combat bi desee juróom-benn fan ma daal di blessé fi mu toll nii nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax reprendre naa li nga xam ne mooy sama entrainement di déglu promoteur bi. muy noonu mooy àdduna nee na képp kuy laam-laamee ndax moom gaañu na wala gaañuwut mhm. yow. mën naa de sax du xalaatoo xalaatu nit dana ko dal. Uh-huh. mën naa dal ku nekk ci àdduna. dañ koy uh-huh. ñaanal jàmm et puis nekkul ne moom kese la dal ci làmba ah. mm-hmm. gis nañ fii combat ba tàyyi mu dem ba des ay quelques jours combat mbër bi am li nga mm-hmm. xamante ne bii mooy gaañu gaañu ñu annulé ko ñu ñu reporte combat bi sax. Mm-hmm. muy noonu nag day jëm ci retrouvailles de tous les dangers à 12h combat bi dox ci diggante Baye Mandione ak xoyantaan bu Gambie tey dañuy def seen face to face fecc mel. ki nga xam ne moo ko taxawal mooy jam production jamaïcain jamaïcain sénégambien boobu nga xamante ne bii day doxal làmb fii ci senegal wante tamit day dundal làmb fële ca Gambia kooku mooy jam production di xele wante am fulla am fayda am jom xam li mu bëgg tamit ci wàllu làmb moo taxawal mu looloo tax mu taxawal combat la di dox ci xoyantaan ak bàyyi ma njot xam nga ne doon nan doon nan waaje bëre fële ca Gambie gannaaw ba arbitre yi di daggaloo bàyyi ma joon ay weewam mu daal di bañ fa la coow la jógee woon ba combat bi daal di yàqu léegi nag euh, jamaïcain nee na du ma yem foofa dama leen di andiwaat pour ñu leera boobu boobule komba ndax ñoom ñaar jotuñoo sëgg bëri ñu fas yéene def face to face nag ku ci nekk jàkkaarloog sa morom waxante ak moom mu nar a nekk face to face bu tàng jër. diggante xoyantaan li ma bëgg mu leer. mooy xoyantaan mooy roi Gambie. waaw bu ko bu ko Baye Mandione daane kon ça veut dire Baye Mandione mooy nekk. roi Gambie moo doon roi loolu day neex te du ñu am roi Sénégal am Gambie fépp daal di neex. Sénégal ak Gambie benn lan def ceeg sotti ci la. day neex ndox ak suukar la yëngal tuur. maa yëngal naan jeex na tàkk yëngal de ci dàq. Fass laa jëm Fass nag ñaari xale mi wax général bu Fass ak Gris envoyé au front mu mel ni semaine bi ñu jëm Fass nag am na yab bu diis a diis a diis mbay mel nii ñaari xale ya yëpp nañu leen waajal nañu leen. bu fekkonte ne bii guerre la ñu jëm ñu ne jox nañ leen seen ay jumtukaay yi nga xamante ne bii moom la ñu war a duggee ci li nga xamante ne bii moom mooy àll bi muy général bu Faas ak Gris 2 général am adversaire de taille Coly Faye xale ba nga xamante ne bii dafa am sañ-sañ ci làmb am yoonu làmb bu leer ba nga xamante ne bii dafa toog fu wóor nekk mbër ba nga xamante ne bii sooy bëreek moom du rëkkale lu dellu gannaaw day dox ci sa kaw def lu muy def daan la ki nga xam ne moom mooy Gris 2 war a càkkaarloo ak Abdou Diouf le géant de Waalo mbër ma nga xamante ne bii toll na ni luur yi am na taxawaayu luur yi tamit te it bul fàtte ne moo daanoon Gris Bordeaux numéro 1 ki nga xam ne moom mooy Magu Gris Bordeaux numéro ñu war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Gris Gris 2 am sas wu rëy nag tegu ci ndoddam di ko xaar tamit mu nar a nekk combat bu neex nar a nekk combat bu rëy kon daal weekend bi Fass am na ñaari combat yi nga xam ne combat yu mag lañu. combat yu mag da tax na ginnaaw ba le 26 bañ jàllee. Mhm. ñii di dëkku Sa Thiès ñii di dëkku Moussa Ndoye kee de Youssou Ndour nag Mbaye Assane Wala Mbaye Babacar. Mhm, benn la. kam yi defiyee. mooy Issa Pouye. Issa Pouye li xew laa bëgg xam lan la. le caïman de Thiaroye. mooy isaaku moom bu la jaaxal war ko isaa mhm. moom la Bécaye doon naan isaa mënoo daanu ba pare di daaneel. <laughs> mi ngi noonu Youssou Ndour nag moo xëy di ko tàllal loxo nee na ko war naa mën a bëree ak yow. Mhm. ndax bëre naa ak sama ay moroom yu bëri daan leen sama combat bu mujj bi bébé julde laa mujjee daan. bëri naa ak samay morom daan leen fi mu toll nii dafa jot nag ñu jox ma ponkal yi ma jëflante ak ñoom fi mu toll nii nee na isaa puy war naa mën a ñëw ñu bëri. wala ñu jox ma ki nga xam ne moom mooy franc ndax dégg naa ko bari barki démb muy dëkk Lac de ni numéro 2 bi dëkk Géejawaay ak man mais na xam ne Lac de du moroom du moroomam du màppandoom na ñëw ñu bëree man ak moom man mii may moroomam. fu mu ne nii daal mbay baa ko dëkkante dafa xew. moo tax dañuy dem ba journal record daal di fay dugg xool la fa xew. ka fa fekk nag mooy Matar Diouf Matar Diouf ka muy défier mooy Zos. borom du naan kafe xel ko Moodu Maane. du ma naan kafe. du ma naan du ma tux. ñëw fii ñu jox ko kafe mu toroxal na ko kii jox ko sa papa ji benn cër Pakala nag ak Xaadim Njaay de ñu mee moom nun daal ñooñu la bëgg na mhm. jox leen ko mu bëri ak ñoom mhm. waaye ay cër Matar Diouf Assane bu record moo ko fekk arène nationale barki démb séq ak moom waxtaan bu yaatu Matar Diouf nag ndaanaan la ci wàllu làmb mais ba mu gëjee ci làmb ji ak léegi def na fukki at ak benn 11 ans 11 ans dafa bëgg ñëwaat nag dafa bëgg def retour ci làmb ji li naan Matar Diouf is ba Matar Diouf Isba nee na dafa bëgg a dellu si waat ci làmb ji euh, suñu naataango bi laaj ko ñan nga jot a bëreel ci làmb ji mu ne daan naa guy gi. Hmm? bu écrit Mor Fadam. moo war a bëri rek rek. nee na daan naa guy gi. nee na tamit daan naa ki nga xam ne mooy laay bee daan naa jamteeri daan naa commando senior mm-hmm. mi ngi noonu euh, nee na fi mu toll nii ñi mu bëgg bëgg a bëreel wax nga ko sànq nee na buñ ko joxee jos. baax na buñ ko joxee pakala baax na buñ ko joxee xaadim jaay numéro 2 tamit baax na mais fi mu làmb est-ce que nooyu fi mu làmb fenn nooyul zos musul nooy ci àdduna zos nee na tamit isaapuy isaapuy bu ñëwee baax na nañ ko jox isaapuy waaye borom dóor dara borom capp-cappaat moom foofu nooyul dañuy daal dem ba journal les arènes mhm. les arènes nag moom comme xëyee ci xëtamu njëkk démb ginnaaw ba Balla Gaye de tolle fee ca INSEP de Paris France mhm. mhm. ni tontu du te daf koo na ko Balla Gaye faraatu sëf bagaare maanaam Balla Gaye lépp lay wax ah. moom saf xeex ndax ku taxaw ne da ngay xeex ak Bombardier ah. géant ba da ngay neexal say fans rek Mbaye Babacar Bombardier mooy yëkkate yooyu la kàddu di tontu tontu ki nga xamante ne bii moom mooy ah, Balla Gaye numéro 2 nee na ko man mbër laa ma nga xamante ne bii du ma reculer te it champion laa ci làmb ba ñëpp ràññee ma benn mbër du bëre ak man di ma jox timing naan ma damay bëree ak yow ci 30 secondes wala une minute wala deux minutes man maay xool nu ma neex ma bëree ko ak yow ndax sama sama sama tolluwaay ci làmb toll na foofu wante tamit nee na maa ngi ci samay entrainement bu baax maa ngi entraîné box xeex mm-hmm. maa ngi entraîné li nga xamante ne bii moom mooy vitesse xanaa loolu mooy rapidité dafa bëgg am rapide ga bëgg gaaw ci combat bi mm-hmm. nee na tamit maa ngi entraîné li nga xamante ne bii moom mooy physique dama bëgg a yokk ah moom ma jaaxal. kaa la waxtaan tamit. mi ngi noonu ñu ngi gis combat bu rey nag mu neex. combat bu neex la 31 juillet fii ci arène nationale dinañ gis dina tàng te dina neex Mbaye Babacar damay kontaan ci bu baax loolu moo nekkoon di gën a fas xibaaru laam lan ngay tàggatoowee. li may tàggatoowee di fàttali amateurs yi ak internautes yi combat bu mag bi le 8 août fële ci arène nationale ak Leewtoo production diggante Tapha Tine le géant ak ki nga xamante ne bii moom mooy Boy borom curuxu curuxu borom kopp fond bi ñoo war a jàmmarloo Leewtoo production moo taxawal boobu le combat mais yéen ñi nekk bitim réew bëgg seetaan boobu le combat man ngeen gaaw jënd li nga xam ne mooy seen PPV nga xam ne jamono bii am na ay prévente prévente yi nag dafa am li nga xam ne moom mooy réduction de 30 pour cent maanaam téeméer bu nekk dañ leen cee wàññin fanweeri dërëm gaaw leen gaaw jënd li nga xam ne mooy mooy seen PPV ci 3W. point lamb diaspora point com bu fekkee benn bu fekkee kenn nit moo ko bëgg a seetaan 6 virgule 99 euros rek lay def pour mën ko seetaan mais bu ñu demee ba le jour nag dana yokk mu ngi noonu nga mën a seetaan avant pendant ak après maanaam face to face ya entretien ya mhm. open press ya mhm. dara du leen ump ci ñaari mbër yooyu ba insha allah mhm. kon gars yi nag daw leen gaaw jëndi seen i pass damay kontaan ci yéen bu baax wante bul fàtte ne combat spécial bi mi ngi war a dox ci diggante bàmba sama papa sa papa. mooy bëri combat spécial bi ak Baye Jean rakku Pape Thialis. combat bu rëy. ca Kabo <laughs> Langole. ah Kabo Langole xam nga séeréer yi mu ñu demee ci mbappat yi da ngay dégg ñu naan général Malika Serigne jaay bu fas Kamo Langole. mooy ñëw leen ci ñëw leen ci biir géew wante Bamba ak Baye Jean Kamo Langole. <laughs> loolu la nag Bamba laay faral damay di bëggee bu baax waaye damay bëggee sama équipe technique bi. nga xamante ne Mbaye Babacar su yembee. Mhm. ba ñu gis ko di kontaan di apprécier ñoom la. Mhm. dëgg na Bilal damay bég bu baax. Ousmane sama pël bi su bëggee def lu baax rek day def lu baax dama koy bëggee bu baax waaye sama professeur. suñu professeur. Babacar Babacar. damay bëgg ci moom bu baax a baax. nee ko ku nee ko cours nag mu ngi dugg. cours ah. règle des trois tiers. règle non règle des trois tiers ak paille taille poitrine ak taille large yooyu dugg na. dama koy bëggee bu baax moom sama professeur waaye Bamba moom papa mention spéciale damay bëgg ci bu baax. sama nijaay bopp bi nag gaawul utal ma kebe damay bëgg ci yow. Mhm. waaye mañ pro jinne caméraman yi damay bëgg ci yow bu baax a baax 100% assurance sécurité moom moo maane sama chauffeur bi kontaan ci yow bu baax a baax tey góor ñi laa àppoo bu soo ma àppoo jigéen yi loolu laay def jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen.